le 15 mai su ma fàttewul su ma fàttewul euh, le euh, premier ministre noppoon jébbal li nga xam ne moo di ab euh, probabilité justement président la République nes lañu mën a def ba wàññi njëg yi tey nag wàññi nañu yenn mu di wàllum ceeb bi diwlin bi ciment bi ak li nga xam ne moo di sucre bi mais premier jàngatu askan bi mooy li ngeen wàññi dafa tuuti ay juróomi dërëm ak i ay 40 francs yi weccet bi sax ñu ne di national gars yi sët sët waaw si mais xoolal moo tax gis nga yàlla nañu yàlla may xel mu set parce que déjà wàññi bi mu ngi ñu coûté cinquante trois point quatre milliards moom moom gis nga liñ ci. cox président Macky Sall a fait cinq cent cinquante milliards. waaw bàyyi bàyyi ma waxal président Macky Sall ki ko fi jiitoon na ko tane woon moo tax. ñun ki ñu ñi ñu fi jiitu ñëpp. ñoo ah, leen mais dama lay fàttali rek. waaw non dama lay wax. dama lay wax donc pour les chiffres. non pour les chiffres en moins de deux mois yow est-ce que xam nga ñaata sacrifice. ñaata affaire ñaata ay temps yoo xam ne ñoom dañ ko waroon tëdd nelaw seen salaire dañ ko mérito de ñii. ay eurobon ngeen non ay jàmbaar dëgg lañ may moom moo wax la non pas ay eurobon may moom moo wax la. waaw dam xoolal. <laughs> da da soo ma dégloo rek di nga dégg déjà wàññi bi ça nous a coûté cinquante point quatre milliards mais. man damay dem fu fu dama damay résumer un peu wàññi bi pour nga pour nga comprendre ñi naan dafa tuuti waaw ñi naan dafa tuuti waaw mburu mi wàññi nañ ci quinze francs. quinze francs oui. voilà mu jóge si cent quatre vingt dix. cent soixante quinze à à à cent soixante quinze à cent soixante. waay yaa ngi dégg. waay jël huile huile raffinée bi wàññi ci cent francs hmm? jël riz bi wàññi ci quarante pour euh, quarante francs. oui jël sucre cristallisé bi wàññi ci cinquante francs. oui maintenant ba pare wàññi ciment bi deux mille francs léegi yow. bu fekkee am nga xalaat bu baax tu vas comme sànq li doon wax wàññi boobu état bi da koy yëg bu baax fan la fan la jëlee xaalis bi pour mën a wàññi loolu. Mhm. may exonérer ay taxes kii wax na ko sànq. commerçant yi amatuñ choix état bi ci poosam la dindi nii di jéem a dundal askan parce que problème moo am bu fekkoon ñi fi nekkoon dañ doon produire dañoo jaaroon ci yoon bu baax heure bii coono boobu duñu ci fekk. Mhm. mais aussi. xool ko jun manière maintenant familiale man dama toog def calcul bi tuuti quoi ma ne bon Sénégal famille bi fi gën a tuuti des fois ay quatre personnes la ñuy doon exemple nga xool. wàññi bi buñ ko wàññee. Mm-hmm. Mm-hmm. donc quatre personnes yooyu dañuy jënd mburu jënd ñu benn mburu de dañuy jënd diw bu ñu koy jënd maximum ah dañuy jënd na litre diw dañuy danañ jënd ceeb ak yi ciy dem donc. kii base yii ni ñu wàññi. boo ko calculer par jour ci famille quatre personne bi xam nga ñaata la état bu Sénégal subventionné seen dépense une moyenne de cinq cent francs par jour par famille cinq cent francs famille bu quatre personnes mën nañ cee ndékki mën nañ cee jënd kafe jënd ci mburu ça dire que en ce moment l'état du Sénégal est en train de payer le petit déjeuner des familles yéen du ngeen ko xoolee noonu wala da ngeen a bëgg a jël mburu bi non 15 francs ana weccet bi non mais tu les parce que ñoom ñëpp bokk mburu ceeb diw waxaale wu waxuma dara nga wàññi ciment parce que ci logement bi ngay nga bëgg dóor foofu. Mm-hmm. est-ce que xam nga ni Sénégal. Mm-hmm. tey d'ailleurs le ministre l'a rappelé au niveau du Sénégal lépp lu dugg sa poos. muy sa revenu looy gagné ngay jaay ginaar rek ak loo mën a def ngay am salaire rek ak loo mën a def revenu booy dugal sa poos cinquante pour cent yi da nga koy dundee maanaam boo amee ñaar téeméer téeméer bi ci sa biir la jëm boo amee ñaar téeméer douze pour cent yi mi fukk ak ñaar ci location la jëm maanaam fi ngay dëkk même boo kiwul sax ci sa kër la jëm kër pour am foo dëkkuwaay donc ñu sible loolu mettre ko en commun wàññi fu nekk cof fu nekk nga ni yow sa poos du wàññeeku bu baax wuy day wàññeeku bu baax a baax wàññi bi. lépp seen kamtulaayu kattan lañ def ba pare. boolee ci. Mhm. c'est un début man début bu mel nii mosuma koo gis ak fi àdduna toll est-ce que xam nga ni récemment euh, les puissances se sont regroupées pour parler de l'inflation mondiale. àdduna bi Covid bi jaar na fi. Mhm. Euh, guerre Ukraine bi mu ngi fi. mu jeexagul bu mu wax sax jaar na fi. Hmm? àdduna bi certains pays yoo xam ne ak Covid bi tëj nañ fi seeni frontières ubbi nañ ko ñu nekk pays importateur xam nga ñaata problème ñoo fi ñëw plus nag suñu problème principal mooy ñu jëlee les dénk ko ay sàcc maanaam suñu douze dernières années yi ñu dénk ko ñoo xam ne bu ñu xëyee suba ba ngoon ci lu jubadi lañu nekk. Mhm. faale wu ñu réew mi seen poche lañu faale ak seen bu njaboot. donc yooyu yëpp ñun ñu boole ko en tant que problème am benn équipe bu bees bu ñëw def tous ces efforts. ils ont regardé caisse de l'État ñu xool ii métti na xaaral ñu jiima dem subventionner telle affaire xaaral ñu jiima dem wàññi taxes yi xaaral ñu jiima dem taxe parafiscale yi ñu dindi ko ak yeneen ak yeneen donc ñu def effort boobu pendant bu ñu faloo léegi ñu ngi ñu ngi ñu ngi réfléchir pour comment faire ça ñu ils ont réussi ce pari là pour un début lépp luñ xam nga luñ mën a war a def ak ñoom félicitations. Écoutez, ce pas encore suffisant, mais continuez à travailler dans ce sens. Et le travail, hein, liggéey bi du du wàññi bi. ñoom wax nañ ko seen bopp. nee nañ waaw non liggéey bi du wàññi bi liggéey bi du ay wàññi ay kii de. ma ma man expert la en ça en industrialisation et tout ça. donc lépp loo loo xam ni produire ko mënoo koo wàññi wax na ko sànq. il l'a très bien expliqué loo produirul xorom kenn musul wax ci réew mi dafa cher parce que dañ ko. mais loolu nag ah, discours boobu après ngeen ko tenir. waaw non non waaw mais waaw mais attends sëriñ bi doo ma xam nga après après ngeen tenir discours boobu noonu aussi. soo ma may waaw allez-y waaw xorom kenn musul wax. dafa cher parce que dañ koo am am na réew yoo xam ne moo fa gën a cher ceeb bis bu ne ma wax ko parce que dañ koy produire ñun ñu koy produire képp moo tax donc lépp loo xam ne produire ko créer wu chaîne de valeur bi mënoo ko wàññi concrètement effort yi nga mën a def mooy subventionner ak ak les taxes ay entreprises exonérer taxes yi hmm? Hmm. donc képp nga mën a def wala nga subventionner ko génnee directement xaalis fay commerçant yi <laughs> ñu wàññi ko li nga leen di jox rek lañ ciy wàññi mooy jën kuy jënd nga ne ko am te téeméer boobu tegal naa la ci ñaar fukk mu gën a mu gën a dund mais état bi bu yàggee fan lay jëlee lu muy defaree ay tali fan lay jëlee lan lay defaree caniveau yi fan lay jëlee lan lay fajee nit ñi fan lay jëlee hôpitaux yu baax fan lay subventionné mbay mi donc ñoom ils ont bien compris ça et ils l'ont énoncé. dañoo wax ne. mais est-ce que état aussi mën na wéy a chaque fois di subventionné subventionné. waaw même moo tax récemment sax gis naa FMI di wax que ne Sénégal na wàññi li muy subventionné. moo tax dafa am en dafa am dans un état il y a ce qu'on appelle les politiques conjoncturelles. Oui, c'est une mesure conjoncturelle. Mm-hmm. mais maanaam loo xam ne xam na ni lii du wéy mais li ñu mën a def may progresser ba nga xam ne kenn du fi sañ a waxati loolu te d'ailleurs le ministre Euh, maa ngi koy saluer de passage il a très bien di il a dit te man loo dama koy rejoindre ndax damay wax toujours que un être grand importateur amul glorification bokkul ci patriotisme mm -hmm. certes moi tu te fais l'argent mais un vrai patriote du du du du du importer lu bare bare un vrai patriote je dire un vrai patriote day créer ay usines day jël alal jooju fii am na ay importateurs yoo xam ne jël seen benn dix milliards yóbbu ko dem jëndee ko lépp ceeb parce que ceeb bi dafa dox moo leen gënal fuuf mm-hmm. ñu jël dix milliards yi xajul ci usine créer au moins mille emplois dix milliards mën na créer mille emplois usine boo xam ne li muy produit par jour bu doon meew la ñu atteindre suñu autosuffisance alimentaire yow patriote nga bokkoo ci patriote moo tax le ministre a appelé tous ces gros euh, exportateurs yooyu importateurs yooyu ni leen ñëw leen ñu jàppale leen ngeen créer de l'économie ngeen créer ay usines justement donc c'est ça maintenant mm-hmm. foofu ma bëgg a daanelee ci côté boobu dafa am benn dafa am benn affaire bu bu ñu énoncé mais les gens font abstraction sur ça mooy am na quatre-vingt mille tonnes de riz yu ñu jëndee Inde yu nekk ci yoon bi di ñëw moi j'ai fait un petit exercice là parce que man j'aime bien di réfléchir di xalaat comment certaines chose nit yi duñ ci xool donc le prix le prix d'une tonne de de de de riz ci marché mondial bi c'est hmm. environ 526 minimum voire 536 un minimum de 526 dollars donc quand tu le multiplies je répète encore une fois parce que dëkk bi usurpation d'identité ak de fonction dafay bëri du ma mais comme j'ai dit moo tax ma ñemee woo moo ma ñemee woo monsieur Guèye Dany euh, en débat donc mais quand même je suis une personne douée d'intelligence et man je suis intéressé à tous les sujets loolu foofu la réew mi toll donc ce que je dis mooy tonne de riz bi c'est 526 voire 536 dollars une tonne donc euh, nga indi ci quatre vingt 000 tonnes est-ce que les gens se sont def nañu exercice bi def def calcul bi voir c'est combien d'argent c'est 42 et quelques 42 42 42 millions de dollars yu teg. ci ceeb mu jëm Inde. loolu gisuñu ne c'est catastrophique c'est très grave loolu mënoon nañ cee créer deux mille milliardaires. 42 milliardaires. waaw. <laughs> non mënoon na cee créer quarante deux. justement quarante deux milliardaires et quarante deux mille millionnaires dans ce pays là. xaalis boobu ñu ngi ko takk parce que dañ koy jënd certainement jëmale ko Inde lool c'est très grave li ñuy ñaan xam nga lu mu doon. Hmm. heure bii déwén Inde duñ laal dërëm c'est ça le sujet. comment on va faire pour duñ laal dërëm mu des ci réew mi les jeunes travaillent loolu xaj na ci ñun. ok lancé ngeen message boobu c'est déjà je pense que c'est important dinañ ñëwaat ci yow euh, Cheikh euh, parce que pourquoi ma bàyyi la ñuy wax bu baax léegi expert nga dans ce domaine monsieur Thioune justement par rapport ak euh, wàññi dund ji perception bu ñu bëri ci askan bi am mooy